بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرد بسوء الكادو كده باك سنو برم مولانا تبارك وتعالى ديكا تومن ديكا في كلمان gannaaw bu ñu jéggee dayoo ci ay moy ci ñàkk topp ay ndigalam ñu ngi dellu siwaat fi kanamam di toroba di ko tuubal ndax gis nañ ne waxtu wi ñu nekk buñ ci masaan toll ndox daan na bari lool te gis nañ ne ndox ñëw na lool te dara du sabab bi lu may ñàkk jaar fi la suñu borom jaarloo rek mooy di ko waral kon noo koy bakk di ko tuubal di toroxu jëm ci moom diko talal suñu loxo gëna bu ñoom bu ñoo amé xol na xool nañu bëti yërmande bi ba xamné ay jamm la ñoo xamné do dañoo manki ta doye bi waye lu moy bari bari bari bokkale du ca bokk ndax lolu Sëriñ Tuubaa boko wax ne fa innahum wa ihni xasaluka yaa ahad li khaflatin lam yusriko bika ahab lu moy bari bari bokkale du ci bokk kon moo tax mu wëlbatikuwaat delloo si leer maa dem ci noonu ba sotti ndox mu bari mu mu sotti ci biir te damay wax ne rek ànd ak bokkaalekat yi lu ñu mën a bokkaale sunu borom xam nañ ne moom dong moom allasi yunassirul xaysa min baadi ma xaratu wa yanzuru mooy faalixul xabbi wan lu ñu bokkaale sunu borom xam nañ ne xar pepp mu génn ca gàncax kenn du ko ci wóotu kon noo ngi delloo suñu bopp ci moom. ñoo ngi koy sant bu baax it nag ci jot lu rafet li ñoo bari yaakaar yi ñu da am dafa ne ñu ngi nangu suñu bis bii ndax at yu bari ba léegi saa bu bis bi ñëwee dana ci wàcce ndox kon loolu yaakaar na ñu ngi nangu suñu bis bi gannaaw loolu ñu ngi julli ci kii bi ñu woon ci doon muy Seydina ci loolu ñëpp muy saaba yeeg ñu topp ci loolu ñëpp te doon jaar fi mu doon jaar gannaaw loolu maa ngi ñaan di bokk di ñaan ñëpp ñu bokk ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke bi nga xam ne waxtu wi daaw moo fi nekkoon jiitu ñun murid yi te ren mu nekk barsàq ñu bokk ñaanal ko suñu borom yokk ay xéewalam yokk njëggalam ak yërmandam ci moom moom ku mu fa fekk ku fa fekk ak ku ko fa fekk ci dara yéen a ko Moussa barke Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu ñu ngi ñaanal suñu kilifa bopp El Hadj Mor mbakke Mbàkke nga xam ne. moom la suñu borom teg ci suñu kanam ñun njabootu borom gaawaan yàlla yàlla yokk fanam yokk wéram may ko bu rafet te boole na ko ak moom ñu di ko yëkkatil ay kàddu ci turam kaddu yu ak sant ak ñaan jëm ci mboolem jullit ñi ñu di ca jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mu yàlla dogale mooy xalifu sewal murid yi ñu di ko ñaanal suñu borom may ko fan wu gudd may ko wér te defal ko ndam ci lii nga xam ne moom la yanu tey damay wax ni ñëpp war nañ koo ñaanal te jàppale ko ndax yaakaar yi diis na ci moom day mel ni sax yaakaar yi murid yi am ci moom amuñu ko ñëwoon ci baayam ya ak magam ya lu tax pas-pasu démbam ak jikkooy démbam moo tax bi mu ñëwee ñëpp am ci moom yaakaar yàlla ko yaakaar yi tas bi ñu ngi nuyu sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Afia di woy juróom sëriñ baa ngi nuyu te di ko sant te di ko siyaara sëriñ bi ñu ngi nuyu ñu mu bokkal kër borom gaawaan te ñaar doomu lañu kenn ki ay rakkam lañu ñenn ñi ay doomam lañu rakkam yi bu ci tuddee sëriñ Jiiri Mbàkke mi xalifa si Amadou Mahmoun rakkee ñëpp dugg na ci sëriñ bi baa ngi koy nuyu te di ko sant te di ko ñaaral ndax ñun ñëpp gis nañ yitte ji moo am ci kër gi guddeem bëccëg di ci def lu mu man di ci jéem lu mu mënut ñoo ngi koy gis yàlla mi amul fay yàlla ko fay ci barke sëriñ Tuubaa sëriñ bi ñu ngi nuyu doomu boppam yi te seen kilifa di sëriñ Cheikh Anta sama gannaaw moom itam ñun ñëpp mën na noo seede la waxtu wu ne lu yëkkati kër gi di maye ndam kër gi ci lay nekk guddi di ci nekk bëccëg waaye nag sunu borom doomu mooy ki amut pay te sunu borom lu gis keneen ku ko gisul amul benn solo sëriñ bi ñu ngi koy jottali ay gunóor jëm ci mbooleem mbokki jullit yi nekk ci réew mi rawatina kilifa yi nekk ci bopp toox yi. ak bokk talib yi nek ci rew mi waye sen bi ngi baral ab ñëwam ak ñaanam jëm ci bokk talib yi nek bitim rew suñu borom mi nga xam ne moo man loolu yalla leen yombalal leen tax ak génn rew mi ba ñu mën a dellu seen njaboot ci barke serigne touba noonu ñaan suñu borom li ñu sentu ci ñu ci bis bi yalla nako yalla borom boole ñun jullit ñëpp ndax bis bi ñu jullit ñëpp ñoo bokk dafa toll ngir mu nek faaw mu nek ci ay loxo waye no jullit yëpp no si yem ndax li ci xewal serigne bi ñu ngi koy jotlil ak santam ak ñaanam jëm ci gi jité rew mi muy le président de la république ci taxawayam ci bis bi te diko ñaanal mo gouvernement am na nak ñu joxon ay ndigal ñu taxawé bis bi mu tambalé ko ci ministre de l'intérieur gouverneur de la région ak préfet ak chef de service yi top sen dara yëpp def na lu ñu ci bis bi te it li ma mën a waat mooy yéen wala ñu nit kenn ku ci nak soy def ñuy defar bis bi doo def sax ci. mooyee état waaye sa poche boo koy defee loolu leer na nañ ndax ku nekk bëgg na payu suñu borom te ay juddi la ko waaye ñu ngi koy fàttali Ba ñu ngi lay fàttali di lay yóbbante ci président de la République tawati sëriñ bi te mooy tawati jaboot bi te mooy li ñuy tawatoon daaw te tawat yi nag tàmbaliwul daaw lii ñuy tawat tawati juróom-ñaar fukki at yëpp wala moo ko sax la loolu ñor la baax ju xam te itam. loolu day wane ne kon li ñu tawat gannaaw at mënuñu tawat ko fajoogul te wolof dafay wax ne tege luus man day yàq ak xarit waaye gàntu luus man day yàq ak xarit te noonu nag li ñuy tawat luus man la ndax ci dëkk yi rek la jëm di Daaru Salaam ak gaawaan lu dul lu ñuy defaral dëkk yi nag muy lu mel ni yoon yi courant bi ak fu ñuy fajoo kenn du ci dégg suñu baat ndax sëriñ Mamadou Mountakha mi nga xam ne mooy suñu kilifa suñu sase ne damaa bëgg fu xew-xew murid ngir ñëpp fay teraanga sese naa leen ci yéen waa jabootu borom gaawaan danañ ko def ndax suñu borom jox na ko waaye nag li nga xam ne dana cee bokk bokk ci réew mi muy li ñuy def ci réew ci dëkk yi loolu moom bëgg nañ président taxawal na ci te bu mu ko waaj nag waaw loolu maxtaar boo demee na ko ko wax te na ko ko waxee waxin wu ñor boo xam ne mënut a ñàkk la sàggane gi nag ak yeexe gi moo waral kàddu yi ngeen di tàmbalee dëkk ci njaboot gi waaye ñoom njaboot googu ñoo ñaan ñu ànd ko dal ndax dafa am lu ñu xamee woon ca borom gaawaan ba tey mooy sàmm suñu diine sàmm suñu ngor sàmm suñu taalibe te yooyu ku koy sàmm di nga am yar ak i teggin te amul benn sikki ci su suñuy bëgg-bëgg suñu borom dana la ko saafaral incha allah muy li ñu bëgg ci Daaru Salaam gii ak gaawaan gee nga xam ne fa la sëriñ bu nekk nga xam ne diggante ba Bambey fukki kilomètre ak juróom-ñaar te kenn mën koo doxalewuñ ko ba léegi ñun léegi dañoo am sax ragal ci ne sëriñ ba fa nekk te jiite njaboot buñ ko bëgg indi fii danañ am jafe-jafe ndax ci mage àddina boo xam ne ñemee duñ ko jaarale ci yoon wa loolu nag bëggoon ko ko taxawal te suñu yittee nag nañ ci bàyyi xel baax te it xam nañ ne dana faju su boobaa nag buy faju président ba mu fi fekk lu muy tudd loolu moom xam yéene woon nañ muy kii fi nekk xam nañu nun ne ka muy ci ak ayam du yem mukk ak mukk ak président ya ko jiitu ak ya topp ci moom ndax muy daaru salaam gii di gaawaan ñaari dëkk borom gaawaan la ñu yoo xam ne fu ci nekk Serigne fekk na fa am na ma ko fa wax waaye ak lu ne a su suñu bëgg-bëgg ba mun a tax wax lu ñaaw wala ñu def ko ndax la ca suñu borom tëkkoon adduna jaru ko te suñu kilifa ñu borom gaawaan danaan lijjanti am lëj waaye daawul fekke am lëj te suñu borom defaloon na ko li gën ci adduna mooy nit ku nitee kilifa yu bari ba seytaane bëgg a yàq seen diggante ak sëriñ bi ci moom lañu ñëw mu defar ko loolu koo ko wedd danaa fekkewul démb wala waxtaanoo mag ñu fekk woon démb li des ci fànn boobu ñu bàyyi ko fi sëriñ Cheikh nga xam ne moo féetewoo fànn boobu waaye sëriñ bi booy wax na nga fàttali fàttaliwaale sama kàddu yi bu baax a baax a baax ndax loolu ñor na te ñor ba xom na te yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf te bokk ci njaboot yi nag dama noonu dañoo mën a mën ba seen mënu koy kon nag dañu dimbali ci suñu tawal yii léegi nag ñu ngi fàttali sëriñ bi ay fàttali yoo xam ne ñu ngi jëm ci ñun njaboot bi ñun nga xam ne sañ na noo jox ndigal ndax mooy suñu kilifa sëriñ bi ñu ko doon fàttali te fàttali nag farata la ndax suñu borom moo wax ci alxuraan ne fa sakkiri in nafa'ati zikra moo wax si doom soo ne ko fàttalil ndax fàttali dafa bari njool dafa bari njariñ lool kañuy fàttali su soo fàttalee sa yas sakaru may yax see waaye wayete janab wal asqa xal seet naa fàttali ku ragal yàlla ak ragal yàlla am dooleeku waaye ki nga xam ne aju texee dina moom dafay kàmp kenn mënu ko fàttali sëriñ bi mu ngi lay fàttali wax suñu borom moo la tabaraka yi muy wax ne لقد بحثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت suñu borom nee na yabal nañ ci xeet yépp ay ndaw ngir ñu jaamu yàlla te teet taaxut loo jaamu dul suñu borom nag mu dugg ci taaxut te fàttali nag mooy soññee soññee nag baat la boo xam ne su ñu ko waxee dafay mel ni dafa am ñu ko tax a jóg ak ñu ca bokkul te ku jiite mbooloo yaa gën a yeyoo ci ñu soññ la ndax ñu la topp muy taalibe yi taalibe yi nag ku ci sàmm la ma waxoon te mooy jébbal naa la sama bop loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko kañu wax loolee la ñu war di soññu ndax muy digël li borom bi digël di téré ni suñu borom téré waye taalib bi defé moy mu la ma waxoon soñu jërul soñu ndax sareet jërul a woon yoon fasu ko tak fu mu jaar fa lay jaar suñu borom la ñu xam bu la ndax moom doo ko gis do gis ku ko mas gis la mu digle kaja man dina ko nattu su ko soobee tere ka ko def du tax ma téye ay xéewalam ci moom ndax natt ci jullit su ko muuree ngërëmal suñu borom dafay jural ëllëg wa ridwaanu minallaahi akbaru saariku wa fawzu aziim lay mu xéewal ci ku wedd nag ne innamaa nundi wa lahum azaabun muhiin yéen dama koy dolli muy xéewu bàkkaar yi gën a bëri waaye bëggam mu tar moo koy fat moo koy moo koy xaral la sëriñ mu ngi ni soññ bu baax ñu sax ci ak jub te ragal yàlla te ñu fàttali ko mbooloo mi topp te bàyyi di leen fàttali waxtu wu nekk xar baaxi maam ya ak bàyyi ndax amalu leen benn njariñ ndax yëf yi bu wóor diine la nekk nañu ne Serigne Touba ba mu yebal Cheikh Moustapha Al ak Serigne Fadil yi ñu wër réew mi leen a njëkk a dem ci seen bàyyi Serigne Siré Lo ku rafetulum kan la ba ñu demoo def leen Serigne bi li ma bëgg ko nekk leen ay Serigne ñu nekk ay taalibe baax su ngeen nekkee ay buur ñu nekk ay dat lépp yàqu. te ku la topp ngir jëm yàlla ak yoon di beg sëriñ bi soo ko dul fàttali yàlla ak yoon di beg sëriñ bi war nga ko war nga ko te sëriñ bu mbooloo bu bari topp su dul xalaat boromam lu bari bari na lool lu mënul ak muur waaye su dee koy fàttali ko bis dana ñëw mu wéet ak boromam fa kenn dul nekk mu laaj ko ni mu jiite woon mbooloo mu ko toppoon booba sëriñ mu ngi sore bu mu yàpp wata boor ak nit te nee nañ sëriñ Tuubaa loolu la su dee borom waaye ñaar ku ko mën a def ku ko tee mën a def li mu dig ñuy topp ay ndigalam ak ku ko mën a tee def li mu tëkku ñuy moy ay ndigalam sëriñ bu bëgg na lool ñu gën a góorgóorlu ci fonk xam-xam ndax mbooloo ku ñu topp te yàlla rek tax xam-xam mënu jaa ñàkk xam-xam bu ànd ak ragal yàlla xam-xam bu ànd ak muñ ak xam-xam bu ànd ak nawloo ñu la jiite ndax ku jiite mbooloo da nga jiite ku la sut am xel jiite koo tolloon am xel jiite koo sut am xel imaam ba nag ñoom mu daan jiite dañoo xër ci moom lool ci cofeel ñu laaj mboolam waaw lu mu leen defal ba ngeen xëri ci moom nii mboolam mën a defaluñu dara daf noo bàyyeeg li ñu ko gën a bëgg muy àdduna bokk ak noonu li mënu gën a bëgg muy suñu borom te Sëriñ Tuubaa nag bindoo na lu leer bàyyi fi dafa wax ne moo leen jaamu yàlla yëpp boo leen boolee ba ca gën mooy julli julli ci njëlbéenu waxtu wax la bi ana afdali taahaati salaatuna fi awril awqaati tey boo ñu bàyyi xel ci ne waxtu julli jot ngay def leneen wóor naan waxtu wa yaatu na ak yooyu yëpp wóorul ndax diggante noddu ak julli bakkan yu bari dana fi rot te bu sa bakkan bokkee dara du ko jaru ñun taalibe yi nag liy tax ñuy topp suñu bànneex fii ci àdduna ba noppi suñu xel dal fële ci àllaaxira lépp xibaar yu jóge ci mbedd mi la waaye du mbindum Serigne Touba wax nañu ne dëkk bi ñu nekk muy Daaru Salaam bi mu ko sancee jàkka juróom fi njëkk def moo daan jiite waxtu juróom yi te diggante timis ak gee moo daan diggante si kas yi bu jullee gee a man ci sama bopp la damaa bokk ci ñu gëm ne Serigne Touba taraanga ji suñu borom di jox ab jaamam ëllëg yeyoo na ko ndax li ko boromam jaral li ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaral li ko diine lislaam jaral loolu ñu amul njëriñ ñu ko jaral de waaye bëriwul ndax nit li gën a foor ci jëmmam mooy bakkanam te jaraloon na ko ko waaye doomu aadama itam na ku ko gën a jege doomam amul suñu gëmee ne na la ñuy topp suñu bànneex soo léggee sëriñ bu dox suñu diggante ak suñu borom loolu bala koo defal kenn defal ko sëriñ Saliou Mbacke defal ko ay magam defal ko ay rakam ndax kon jaroon na sa Saliou Mbacké ànd ak li mu jaamu boromam lépp mu ñëw ba di tuubal boromam bàyyi rew waajoon bi sotteeku muy sàkk ci mboolem taalibe yi ñu jégalu ko boromam ne wa an laysa lil insaani illa ma saxee waaye wa anna saahibu sawfa yara su ma yu gisoo ci saala aw fere kenn ku nekk ci ñun nag mën naa waat ne su ñu lay dugal ci sa biir bàmmeel dana fa fekk sa jëf ndax nit dana la fa fekk wala nga fekk fi nit nag loolu mooy laaj bi kon li gën a leer na noonu moom ba ci biir bàmmeel تبوي سن جف كاي ما يبال غيرنا سو مانا ديمال سا بوك مو گن دا ما واخني امنا بن ايه في القران وار دنج كاي ساتنتال بو باخ سن بروم داف تي واخني من جاء بالحسنه فله خير منها فوفو نك سن بروم وخل من فعل من جاء لو دا ngay جف جف جبل سامو كو بيو بالا بيو بالا يوم القيامه من جاء لو ناخ نيت دينا جف جف جو واي بام كوي جف دمو يالا ناخ دي ويد سن بروم جف يي جف نيو جولي ni ñu ko gëna rafet la fuus ba jëf jooju suñu borom am ci soxla nit dana jëf gëm na yàlla naan waaye nit ñee ko tax muy jëf te loolu bari na ci sama maas bi ngir bëgg nit ñi teg la fenn loolu mooy ngistal suñu borom am na soxla ci ñoom jëf nit dana jëf gëm na yàlla yàlla dong moo tax mu jëf ko waaye dafa maandu woon digganteem ak moroomu jàmm àq ya ak jëf ñu fay leen ko mu jeexal jooju jëf suñu borom am na soxla waaye suñu borom nee na ku andi jëf yabal xiyaan ju rafet te fekk ba nga koy jëf gëm nga yàlla yàlla dama moo tax nga jël ko amul gis-sal amul àq yi koy jël lu ma la fay la nga jëf lu ko gën a rafet laa lay fay te it du ma yem yow foofu loolu muy façon yi yow seen aami noonu nee nañu ba def loolu dina leen musal ci tiitaange ak njàqare yi yowmal xiyaam lu jafe la nag sëriñ bi dëgg na loolu ñu fonkaat jàkk yi ak jumaa yi ak daara yi ndax ku bëgg sa biir nag di nga fonk jàkk ak jumaa waaye ku bëgg sa jikko rafet di nga fonk daara bari na non ci taalibe di dañoo fon jàkk yi ak jumaa yi ci seen kilifa lañu gëss ci woyofal ko ñu defal ko woyofal waye woyoful seen bu bëgg na lolu bàyyi xel àdduna bala mënoo wax borom bi dafa wax ni ya ayyuhan naasu inna wahda allahi haqqun fala taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum bil alxaruur sunu borom leen na nañu xam ne doon bi mu doon mu yamal xel dëgg la te du ran kon nag dund àdduna bi bu mu la war ki war ci sunu borom ba bi dem mu seytaane bu mu la war Seydina Muhammad sa alayhi wa sallam tekki ne bu bu dun yaa raasu kul xatiya <coughs> nee na ñaawteef yëpp bu ñu doon jëmm boppam ba moom bëgg àdduna ñun njaboot gi rek njabootu borom gaawaan suñu borom jox nañu bind boo xam ne suñu ko dee nafar àdduna war la baaxoo naam waaye suñu suñu war itam mën naa bu boobaa du metti te mooy fii borom gaawaan tëdd moom ñaari doom ak ñeenti sëdd ñu bokk tëdd ci lu matul ñeenti mètre te te ba muy dund ñoom ñooñu kenn ku ci nekk genn kër defoon na ci yow ndax sa mbooloo suñu ko dee bàyyi xel adduna duñu jaral dara ba dina war fii suñu lu bari ci ñun suñu digganteeg seen i bàmmeel bu ñu ko doon dox jéego yu néew lay ñëw lay doon sëriñ bi itam bëgg nañu fàttali bu baax si moom bi hablillahi jami'an wala tafarraqu suñu borom nee na mooy leen tudd ak yàlla ci yéen te bu leen tàqali ko loolu nag lépp lu baax daf koy dugg sëriñ bi bëgg na lool ñu booloo te nekk benn te toppante ndax loolu dafa bokk ci kanam yi tey yoon bi te ku ko deful yaa ngi def lu mu nekk bëgg-bëggi Serigne Touba bokk yi tey lu xam laa soo waxee du wér soo defee jox ko yaa jàpp sa bopp ab jullit waaye desee nga lu te loolu nag bari na ci suñu réew moo xam ne dañoo wax ne quatre-vingt-dix-sept pour cent nañ ay jullit lañu ñu ne dañoo bëgg a yokk kaso ndax dafa fees te li ci biir kaso yi ñu nekk ci biir a soo demee Europe pays yi ñu wax les pays scandinaves moom lu du ñu ay jullit naan waaye nee nañ dañu ko bëgg a sopp ay supermarché ndax am bu ñu ay président yu ko tëj loolu fii la ñu doon jàkk sëriñ bi bëgg na lool muy fàttaliku bu baax hadis bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi responsabilité yooyu ñëw waaye kuy dox ci kaw suuf am nga ne su yaboo xiyaar bi sa bind teew dina la laaj la ma la doon sàmm la ab sàmm la war naa def itam ci jur gi bu mu réer jur gi nañu suur te jur gi bu mu ruur doole jàmbur keroog bi ñu laaj iliman lu mu war a jiitee mbooloo bi ak lu mu leen doon xattee ndax iliman du maanu aljanna moo di fayam keroog danañu laaj kër lu mu yore woon këram mbaa maanu war na ca diggante njaboot ga mbaa daan na leen dundale lu lew mbaa daawul jàng ca diggante a ci danga nar a jàng ci moom dafa soxla ñu des fa in xiftum allaa ta'dilu fa waahida yow soxna say dam mbaa daan nga sàmm sa alali borom kër ak di sa diggante kër ba ki génn àdduna bàyyi ko njaboot yow nag ci alal di seen a bàyyi maa taxaw ndax jàmm ci ñu mélange ko dafa lislaam ci liggéey waaye nga taxaw sa rakk yi rawatina xale yu doon doon yi ak jigéen bi ak soxna yi seen wajur bàyyi maa ngi amoon ci sa bopp ak sa njabootu bopp fàtte leen kon loolu kat ba am daf koy laaj ëllëg inna al aada kaana masuula te yëf yi boor booy lal ba rek balaa nag nga jóg nga yow itam bàyyi yu noonu léegi nag ñu ne lool bëggoon lool gën a la nga la lool dañ lay fay yaxsal na si la lool talakoo min xadrin bu yaqi diaago xaabo alayhim fal yattaqu llaha wala yaqulu xawlan sadila naka noonu kilifa yi aada yi kenn ku ci nekk responsabilité yi nga yor soo wax doo waaye sax fay ëllëg ma nga fa te taraawu ji rëy lay doon tàmbalee ko ba ci ñaar jaar ceeg maire yi ak ministre yi ku ci nekk nga jiite li nga jiite ci réew mi président de la république da ko jox yaakaar ji mu am ci yow xamal na bàyyi na ci yi ñu ne ko dàq quatorze ñu ne ko dàq a mën fa ji te ko jiwut loolu bokk na ci yi gën a gis ca ñooñu nag responsabilité mooy siis bi àtte nit ñi nga bàyyi xel ci ne li muy àtte lépp lu ñaawaat tawaat la yamal xiyam nag loolu te suñu borom nattoo mu jiite réew mi ndax jiitam réew nattoo la war nañ koo dimbale ñun nit ñi ci sàmm suñu devoir ngir mu mën a sàmm suñu droit ndax di moom moom président dina layam Sénégal bu nekk na mu sàmmoon ay àqam ëllëg bi kanam suñu borom moom mi nga xam ne amul kumpa ci dara ak Sénégal bi def chiffre d'affaires ay millions par bis di ko dugal ci compte ak ak Sénégal ba nekk ca santaan ya amul 500 yu mu jox soxnaam si wala yow bu mu bëgg aw xew dem fa su nekkee ba noppi ñëpp waa kër yow nga jiite réew mi dina reyal ñaari Sénégal yooyu